wala wala foofu ni ni ni mu riise mbaalu jokkoo yi moom la ñuy wax réseaux sociaux loolu rek la firi baari réseaux sociaux mbaalu jokkoo yi fa nit ñee daje di waxtaan mbaalu jokkoo loolu kon nit ñi dañ ko war a xam téléphone ñu ngi ne jollasu waaw fan yi wóowuma la ndaxte sama jollasu gi daa am jafe-jafe jollasu ma ngi am téléphone di jollasante baat bu yàgg la baat yëpp ñu ngi fi woon na mais ñun ñun ah ah ngullee gis nga ko <laughs>